waaw waaw waaw waaw waaw dina ma président Waly Mbaye waaw waaw waaw wax nga dëgg mooy garde corps yi laa gisul ko waaw tey dama làq garde corps bi làq ah. chauffeur bi nag génnal sama bopp ah léeg-léeg guddi gi trois heures du matin bu jotee damay am bi ruq yu may jaar waaw waaw waaw garde corps bi ne ko na tëddi ah. chauffeur bi ma ne ko mu tëddi ah. ma xuus xuusaat xaañ xaañaat gëmb dóor <laughs> ba tey yaa ngi si daa am su sa benn slogan boo génnoon nga ni président Waly su ne weex nga ni xeex su ne weex <laughs> ma ne ko taal bu ne ñuul ma ne ko waaw ah. li ma lay dénk mooy. dama nekk ci kaw tali. tawat dañuy romb. waaw dañoo daje. il fait trois heures du matin. waaw ah, trois heures du matin laay dox taxaw du yàgg. waaye damay lancer appel rek. Adidas Arena. le 7 décembre incha allahu. man jënd bi nag. man tuur bi. man dëmb bi. maay jiitu. <laughs> est-ce mais parce que keroog jàkkaarloo nag président nee na ma. waaw day teel a dem. non non mom sax maa koy tout Le <laughs> mais président. Ah. président de mais dit. mais balaa ñëw. Ah. man dëmm bi. Hmm. rab bi bi man damay jiitu. <laughs> bu ma jiitoo miine. miine wax la ma fa war a wax def la ma fa a def xal yoon ah. président. mais dama dégg nii de si site yi site yi foofu jeex na hmm. fa. keroog loolu laa doon wax président mais leerul euh, moom comprendre woon. waaw bii jeex na site bi. Hmm. site bi nga site Adidas Arena. jeex na fa VIP. mais tey ku bëgg billet. Mhm. point de vente yi. Uh-huh. wala nga woote ci numéro promoteur bi Kisma Diakhaté. Ah. numéro mi ngi ci affice bi. Uh-huh. dana la wax ci yan point de vente ngay dem. nga uh-huh. taxaw jënd sa billet VIP. foos bi nag. nit ñi ngi jënd ba tey ci ci ci site ak ci li nga xam ne mooy mooy mooy mooy ci point de vente yi. nanu gaaw nag te xam ne incha allahu rabbi. premier décembre incha allahu. buñ ci yàlla yóbboo. billet dootul des ci point de vente. dootul des ci site bi loolu moom. lu ma la mën a waatal ci alxuraan la. kon yow yow yow ñaata fan ngay jiitoo président. Eh, Mbaye su ma la bëggee wax dëgg bi nga ko dégg. <laughs> bu gis gii nga ma gis ci guddi tey jii. Ah. yaakaar naa ne du ñaar. <laughs> kon naa la namu de. <laughs> nee naa la namu de kon xam nga yow. ma namu ah, parce que parce que Mbaye. Ah. Eh, damay dem. waaw damay dem damay jiitu ji damay samp ji. mais kenn la gis si si Thiès beeg yooyu. Eh, non non non incha allah fekk. mais loolu loolu est-ce que président dina mën a engagé loolu. day seer hôtel yi day seer ak yooyu. non non non foo ma jiitu mbay lépp mën na. mais hôtel yi yaa ngi fi. hôtel yaa ngi fi argent de poche yaa ngi fi. lépp mën na buñ demee ba ca ñoom mbaxtal ga. lañ ci war a leeral danañ ko leeral. ah mais mais transiment bi tamit. mais transiment bi. boucher man. boucher lu mu ñëw. fan la ñëw. ah faramaare farajee. loolu yëgu ma ko de. ñëwul de mais Oro. xam nga laa lay wax ah. kii lan lay wax nii. li muy wax nii li muy wax nii de man yëgu ma ko fenn. yaa tudd turam man tudd ma turam. ah dund dund. wóoy wóoy buuse buuse suñu frère la. te gars yi nañu bàyyi. ay waxi transhumant ak yooyu amatu fi. gis nga Adidas Arena bi. lu bari dana leer ci showbiz. maa la ko jox man en exclusivité mhm. nañu bàyyi ay transhumance ay kër amatu fi benn kër la ñoo bokk lépp kër Pape Diouf mooy kër président Wally kër président Wally mooy kër Sidi Diop kër Sidi mooy kër Tarba mais Omaro nag loolu day yàq showbiz ñun ñëpp benn lañu loolu day yàq showbiz non mais day yàq showbiz ci yéen sa classe bi <laughs> sa classe bi yow mbay parce que yow ah, dama la doon namu ah dama la doon namu yi nga daan wax <laughs> jafe <laughs> ma moom doo ko dégg ndax xam nga man yëf yi bu safee man la yëf yi bu ah, xumbe man la yëf yi bu neexee man la bilahi maay dëmm bi wala déggal ma maay rab bi maay gind bi yooyu laa namoon bu yëf yi safee man la waaw yooyu laa namoon mais dootul saf di nga ko namm déedéet jàmm rek laa mais président damaa bëgg mu am na ñoo xamante ne a ngi ko jàmm yéen a ngi ko jàmm moom yéen a ngi jàmm waa léegi moom ñi ko yéenewu jàmm waa ñi ko yéenewu jàmm ah. moom yéene na leen jàmm te ñaanal na leen yàlla ñëpp am euh, euh, kan moo nekk si danger diggante Modou Lo ak Siteu nii nii nii jamono ji may wax ak yow nii ba sama xalima daanoogul Siteu moo ne ci danger nga ni Siteu bu dee li may dégg moo ne ci danger ba jusqu'à la preuve contraire Ah. ci li ma lay wax nii. waaw lu leer la dañ ko côté. Ah. parce que damay wax saa su nekk ne làmb mën nga ci jàpp mbër. Mm-hmm. jusqu'à la preuve contraire néew ma ni nag. Mm-hmm. Modou loo mooy daan ça soit mm-hmm. clair parce que sénégalais booy wax ak ñoom faw nga jox leen lu leer naññi. parce que dañu am écho. ma ni la dafay dépendre ci ñaari mbër yi. Siteu moom ci boppam mu xam entourage am xam ñi nga xamante ne bi ñoo yor ci wàllu waaye ba fii may wax a yow. Modou Lo moo ko supérieur ci kaw. nan la ko supérieur yi lan la war a maanaam sarax yan ay sarax koy dindi. wala lan moo koy dindi. xam nga dama la wax léegi man la ñaari mbër yi ku ci nekk. Uh-huh. surtout dama koy gis ci télé bi. Uh-huh. waaye dama la wax léegi man la bu fekkente ni bi ci wàllu entourage mystique. Uh-huh. capable nañ. pour teel a xam ni ñuy def. Mhm. mën nañ ko déjouer ci ay sarax. Hmm, si sarax rek ko mën a génnee. non sarax mën nga ko sarax mën na lu ne. si biir si jour bi. la la ko sarax bi ci jour mhm. que am na ci loo xamante ne bi dama la wax léegi may la làmb dafa am avant ak après. Mhm. maanaam durant trois jours quatre jours yi nga xamante ne bi des na. ku ci nekk yaa ngi def say mbir. pour xool noo peegee sa morom. gis nga lay xew ci biir làmb ja mm-hmm. loolu làmb ja la mm-hmm. waaye jamono ji ku ci nekk yaa ngi teg say stratégie pour génne sarax boo xamante ne yow ba léegi da ngay war a xool moomaat combat waaye fii may waxee yow nii mm-hmm. loo moo supérieur li mu def yëpp wala kon Sa Touba dem bi mu dem euh, noo gisee kon taxaw tax kon xam naa tax Sa Touba kon mi ngiy pexe mais euh, euh, dem bi dem janvier est-ce que kon yàqul dara Siteu Siteu non xam nga Sa Touba man pour ma wax leen lu leer. Mhm. Sa Touba. Mhm. ak courtier rek day dox. courtier. dama lay dee wax man maay wax ak yow Mbaye. Mhm. man maay wax ak yow. non non Modou Lo Modou ko soo doon courtier kon du ko fa teg. waaw may ma tuuti rek ma ñëw. gis nga tey dama la wax ma ne la léegi bi may commencé sa njëlbéenu vidéo bi dama laa wax ma ne la bëri na fukki sëriñ nekk ci biir kër Modou Lo Modou Lo moo leen gën a xam mbirum moo leen gën a xam lañ ko a def moo leen gën a xam fa muy taxawee. ah mais sëñ si sëñ Babacar si moom mi ngi koy jëriñ. waaw xam nga dama wax saa su ne. Uh-huh. nit ku ne. Uh-huh. dafa am ku lay yàlla di booleel. Uh-huh. du ma ne du ma leen du ma leen du ma leen xalaat. parce ñun ñëpp ñoo nekk ci biir milieu bi. sëñ si si dama koy gis muy def ay affaire yu bari ay effort yu baree baree baree baree bari. moo tax nit ku nekk da koy waxal li nga xam ne moom leen mérité. da nga may dégg. waaye man pour man saa Touba man. dama part personnel. convaincre ma man ci wàllu mystique. ah ndax lan mais li muy li muy def dem na jarwaar ah sànni fa si géej gi ay ay ay xob xam nga est-ce que loolu du toj toj toj tal est-ce que loolu du toj tal xam nga tojtal dafa am ñaari façon tojtal mën nga tojtal nit ki sax te doo génn si biir kër mm-hmm. gerte gi da ci tojtal nit mm-hmm. xollitu gerte mm-hmm. moo tax ma wax la ma ne la man am naa droit ne man Sa Touba convaincre ma ci benn côté mais lan moo tax sëriñ si yëpp ku ñu ku ma jékkale micro da ngay xalab saa Touba pourquoi loolu. waaw xam nga nee naa la gis nga li nit li waa ji nuroo da koy nuroo daal. nan la koy nuroo daal dafa. faw nga wax gis nga xam-xam dafa am. Mm-hmm. éthique. Mm-hmm. ak déontologique. Mm-hmm. théorie ak pratique. am na koo xamante ni bi dafay tawa dafay pratique rek waaye théorie am na koo xamante ni bi mën na théorie waaye mun a pratiquer. Mhm. Sëñ Tuubaa foofu la toll. Mhm. mën na théorie waaye mhm. mënut ta pratiquer. te pratiquer bi du ay pion la rek. xam nga lu tax ma wax la ma ne la tey li ñu mën a toog ak lu mën a xew. nee naa toog bind wax yo yomb na trop. waaye après bu juste bi jotee nga jëf. li nga war a jëf nit xam ne yow jëf nga moom mooy trop loolu mooy moo moo moo jafe ci Sëñ Tuubaa dama la dama la nëbb. am na koo xamante ni bi dafay préféré jël kurusam. def ci ay lawraat ñaanal Modou Lo am na koo xam ne day préféré ne ay sarax. Mm-hmm. parce que am maa wax nag bari na loo xam ne mi ngi ci làmb ñu koy jàppee sarax du sarax. Mm-hmm. sacrifice la. kooku mm-hmm. sa soit clair. parce que bu fekkee ne sarax la la yàlla wax ci alxuraan innama sadaqaat lil fuqaraa wal masaakiin ila aaxiri aaya maanaam ñun tënkuwuñ foofu. moo tax ma ne la aaya gis nga làmb dafa bari loo xamante ni bii maanaam lu diina dàq la faw nit ñi xam ko. parce que tey jii da ngay dem ci sëriñ mu gëmloo ne la kii kat dama koy génne sarax fekk sacrifice la lay génne sacrifice boobu boo xasee ba daan mën na la topp idaa ñaata mu jël mbër nga fi gis ñu feebar ba paralysé ba leen ñu ketal hmm. ndam jar na ko hmm. am na ci mbër yoo xamante ni bi seeni soxna dem na ndax ndam jar na ko hmm. am na ci mbër moo xamante ni bi ba mu géjee daan lenn mbër def ci léppam ba mu fa jógee ba léegi ay defar lay moo tax ma wax la ma ne la nit foog nga xam sarafu nit ki d'abord xam tabiawu nit ki nga xam ban heure nga koy toog ñaanal ko ban heure ngay toog xamal génneel ko sarax nga xam ne sarax bi bu jugee ci làmb kat dina xam ne kii kat moom moomaat na boppam ci làmb foofu laay waxee ma la ñaari Modou Lo ak Siteu dafa am ñaari différent yu ci am Modou dafa réservé wu lu bari mhm. te Modou Lo ci biir kàddoom buy wax da ngay yaakaar ne kii dafa ragal adversaire bi mhm. fekk moom ci boppam ni muy tënkee bés bu ngeen jàkkaarloo nga xam ne kii am na lu mu la téyeloon da koy jëflante ci saas acca ah, est-ce que yaakaar naa ni Modou Lo euh, sëñ bi euh, lan lay duggee si làmb ji jour boobu day indi ay gàllaaj dina dina wala dina takk comme ni daan takkoo wala ni mu daan indi euh, comme li mu ñëwee si contre Ama ak Boña lay ñëwee Modou Lo li des ci làmbam mhm. fii laa la koy waxee mhm. gëmatuma mu daan def nam daan def ci làmb di takk ba ñaan sekki bee takk foo xamante ni bii ba da koy diisloo déedéet mhm. gëmatuma ko ci làmb kon bii yaakaar naa ni nam daan ñëwee lay lay ñëwee nii fii laa la ko waxee noonu lay ñëwee noonu lay ñëwee xam tax ma wax la Modou Lo dafa dem ba am expérience ci jàmm ci làmb professionnalisme bu dugg maanaam dama la wax saa su nekk ma ne la déjà gis nga alquran bu nekkee ci sa dund dafa am beneen comportement bu muy lay wan ak comportement bi bi bi mu la bi nga yore woon bu njëkk. ah kon moom fi mu nekk nii soxlawul gàllaaj xul wala ahad lay dareeg yooyu xul rek dugg. non alquran kenn mënu ko kooku moom mooy sifaa un wa rahma. rek lay def maanaam alquran amul lenn lu ko supérieur. ci kaw nag nga xam capacité bi. am na koo xam ne nga koy jox alquran muy laam-laamee. dana demam du dem hmm. bokkul ak Modou Lo hmm. parce que dama la wax saa su nekk ma ne la gis nga li ngay dem ci sëriñ mu ne génn loo naan la rayal bëy rayal nag hmm. rayal rayal mbaam ak lu kenn xamul alxuraan ci benn aaya ci benn aaya nga jàng ko ñetti yoon daal di koy taf ci sa kanam te mu ko maanaam lu la nit doon def munu ci yow dara ah. mais gëm nga ni comme li muy wax si communication ne dootuma daanu ba ba la am Modou Lo waaw loolu fu ko teg non yàlla rek moom moo matale Mm-hmm. loolu tax mu communication moo koy def. waaw xam nga dinaa la lu si nekk rek maanaam cadre déstabiliser adversaire ah. xam nga làmb gis nga man damay bëgg man Modou yàlla seede na ko am na ci loo xamante ne bi sama akulaay taalaa laay wax waaye daf leen a gën a dal ci làmb mm-hmm. daf leen a gën a mature ci làmb faw ñu bañ a jaawale loolu ku daan ténor yu bari yi fi ne ku ci nekk nga am foo jaar ak moom kon bis bii mënulaa jaaxal. bitti xam nga mm-hmm. xam nga. waaw kay fan mooy problème bi. maa ngi doon ci fan la nekk ci Siteu. Mm-hmm. te Siteu bu mu amoon lu ma ko doon yóbbante. Mm-hmm. muy nañ def dal wàññi wax ju baree bari xaw a sàcc boppam réservé wu. que waaye li ma la mën a yëgal. muy Modou Lo li des ci carrière gëmatum mu daan takk laar yaa takk xombo yaa yu demee noonu. gëmatum loolu loolu suñ Cissé moo ko digal wala. waaw xaw ma nekk wax dëgg yàlla lu ma ci wax. xulil hmm. xaq wala a nafsi parce que lu tu nekk rek dama ci wax loo xamante ni man xam naa ko. xaw ko mën di digal. Hmm. Hmm. waaye li ma mën a xam man. ci deux dernières années yi ni mu comporté woo. nee naa ak ku ko mën a dëgal. ak li nga xamante ni mi ngi takkoo laat. jang alquran est-ce xam nga ñaari dina la ko yegal mhm. njàpp fépp boo ko yàgg foog yaa ngi takkoo ak mom nit mënu la tak japp mhm. japp mhm. waxuma la nak ak yeneen musla yi nga xamanteni bi ñoo nek ci bir alquran gëm nga ni papis dina ñëw jour papis nak wax deug yàlla ñoom ñoomi neen la parce que damay wax lo xamanteni bi xamna ko xawma papis xawma la ñoom ñaar parce que ke xaritam la ki ñoom ñaar ñoo doon liggey waye nak bu doon may mom ci en tant que conseil nam ne woon day neutre na neutre parce que lu xajamal deru jàmbur dafa yomb. Hmm. Modou Lo dina ko comprendre te Siteu yi dana ko comprendre si benn côté. acca ñu tënk foofu euh, ñu dem ci côté euh, euh, woykat bi nga xam ne moo ne Waly dëgmal arena est-ce que yaakaar naa ne dina dina di nga di dina fees di nga si am ndam wala. kooku du ne xam nga dama toogoon wax yaa cinq ans de cela. Hmm. ma ne leen. Wally Seck kes xam nga ni bu ko nit ñi ñëwul ay jinne ñëwal ko mm-hmm. Mm-hmm. wallahi wa rabbul kaaba arena bii mm-hmm. bis bu bis ba jotee da ngeen xam ne kuy way non non fee la fee Paris moo tax ma wax la man ni la Paris ga mu ne dana fees ba nga xamante ni bii nit ñi duñu am suñu taxaw ku yéex doo am biir nañu dagg bi xam nga lu tax xam nga fu ma ko teg tem ko teg ko ci ci ñetti at yi nga xamante ni bii li ko ci yàlla teg mu nangu ko nan na maanaam bari na mhm. koo xamante ne bi ñàkk nga sa rakk boo xam ne moo nekkoon sa confidence mhm. nga ne déet nga ñàkk wajur wu góor nga ne déet nga ñàkk wajur wu jigéen mhm. nga xam ne am na yàlla sas wu mu nar a namm ci yow am na lu mu nar a firnde ci yow jirim la nag waaye nag nekk na nit ko matil ci lu muy def moo tax may la musiciens yi nañu bañ a comparer seen bopp ak ku ci bëgg jàmm ndax lan non non non bokkuñ. mais ba oh, est ce que doo fan tuwaale kon. non non non xam nga. sëriñ bi mbay. Mm. sénégalais li problème mooy mm. da ngay wax li nga gis ci nit ki. da ngay wax te yàlla rek a tax. Mm. ñu ne kii est ce que bëggul ku ko xam wala bëggul ne diw. Wally est ce que mës nga bari na ay noonu Wally. waaw am am ay noonu de waaye ci biir en dehors de musique bi. barilew ko xam nga lu tax barilew ko. muy dafa nekk nit koo xamante ne bi maanaam yàlla suturaal na ko ba lu mu am. gorñeeku bàyyi ci loxoom mm-hmm. li muy dimbali ci ay nit mm-hmm. li muy dimbali ay nit ñoo xam ne gisuñ ko dégguñ ko kooku yàlla te yàlla wax la li nga xam ne mooy dimbali sa moroomu julli te yàlla rek a tax nga mbay xam nga yu ci bëri foofu laay waxee ba ci cadre bi nga may laaj muy diggante maam Ndiaye sa ak yaayam ak ki demee ah parce que xam nga man dafa am loo xam ne nee naa la li nga doon bu la ko sénégalais yi defee mm-hmm. yow yaay am retenu delloo sénégalais lu ñu moom maam dama wax sa waaw parce que xam lan mooy wax ji mm-hmm. dafa jiitu ci yaa deux semaines de salaam mu laaloon ci wàllu mbirum armeeru tuuba bàq ya mm-hmm. yaa ngi dégg mm-hmm. depuis boobu ba léegi cool yi wàccul ci moom digganteem yaayam diggante ndey ak doom la waaye na xam ni moom wàccewul boppam ci kaw suuf yàlla da ko boole ñaari waajur te nag waajur li alquran di wax rek wa'budullaha wala tushriku bihi shay'an wa bi walidayhi ihsanan ndey xeer la doom nen la ak lu la yàlla may may may may ci wërsëg amal retourné xam ne mais loolu la ko gën a yëkkati de waaw non moom loolu la jàpp hmm. xam nga nit li gën a metti mooy bii bi set boo xëyee suba taal di wax wala nit ñi di wax ci yow fu ci nekk di wërale fekk na yow lam la yàqal ci kanam la ku ko am ku koy wax mu am conseil na xam ne yaay du morom baay du moroom waaju du morom parce que bu dul woon ak ñoom kenn du ko xam mais juboo nañ waaw moo tax ma wax la ma ne nit ki foog muy am retenue loo ko gi loo ko gisal su ko doon non xam nga ci cadre boobu man nee naa la du may concentré wu ci côté en cent pour cent ah, li may dégg rek li ma ci laaj a tax waaye li ma koy wax su fekkente ni bii bëgg naa toll fa mu toll en tant que frère ak sœur nay jëllale tey jéggale tey denc lu baree bari parce que bàmmeelu biir dafa am mhm. ñu naan dafa commencé tojol est-ce loolu gis nga ko si moom waaw xam nga tojol bi ñaar moo ci mën a nekk rek mu laal lu mu mais gisoo ko si moom. non non ah pour bëggee pour bëggee dëgg-dëgg dong la. Ah. gisagu ma tojal si moom. parfois nag nit ki day jaawale. tojal ah. ak ki nga xam ne coow da koo topp. Hmm, coow coow moo ko topp. Hmm. te coow loolu yëpp nag moom mën na koo teel a fay ni mu koy fayee muy fi ko nit ñiy xaar. maanaam sangat su mu sangatu la wala ni ko yàlla. waaw xam nga tey ji ñoom jaaykat yëpp dañ ci am bayra yoo xamante ne bii bayra bi day ànd ak coow. Hmm. bayra boobu ñaar ñoo ko fi amoon. ci jamono ji muy El Hadj ak Balla gay ñoo ko fi amoon serigne si ñaan xam nañ ñu ko Harouna Rachid kooku sa ciow lu mu gëna bëri sa niveau di gëna yok sa martaba di gëna yok sa alal di gëna bari motax ma wax la mané la amna na xamné da ngay dem ci serigne mo ko bayre tam nak bayre bam lay wax mën na la baña arrangé parce que bayre bo xamné santu da ngay and ak ciow bayre bobu lo mën di am après day mel ni ngelaw waaye nañu jàpp am na koo xamante ni day dañuy gëm dañ yaakaar dafa toj tojle fekk tojlewut la mu laal wala lañ ko digal wala sarax buñ ko digal moom moo tax heure bu ko yësoo bu nekkul ci yow yaakaar na ni moom am ay mbiram baaxut maam jaay foofu la toll. Mm-hmm. mais tojlewul dafa dara. waaw ayca sa yàlla rek di ñaan yàlla lépp loo xam ne wax nañ ko fi rek mbokki internet yi lay topp yàlla na yàlla kàttanal lu ñu fi wax bu nekk njariñ te wax ne nag waxeewuñ ak suñ teeyu bakkan ci combat bi ñu jëm ak leneen li ci xew ak lii nga xam ne moom la Wally Seck nar a mébét fële ca Paris. Mm-hmm. nee naa la kuy bëgg jàmm na nga xam ne yàlla moo ko dogal ci moom. woykat yi la woykat yi kenn déggatu leen moom la ngay dégg lan moo tax. ci am woykat yoo xam ne ay woykat lañ. Mm. gis nga woykat dama lay ñaar ñaar mm. buy wor. Mm-hmm. buy ànd su bari. nee naa la loo am day mel ni ngelaw. Mm. par rapport ak Wally Wally maanaam dafa conserver lu baree baree bari ngir. ngir maanaam avenir ngir carrière xam nga carrière footballiste. day moytu ji moom day moytu jigéen ñi waaye. waaw man nag wax dëgg yàlla foofu bu ma fa waxee waxuma dëgg. Mm. xam nga li tax. man mm. li ma yàlla woon ci moom laa xam. waaye mm. Kanta am na ci ñeneen ñoo xam ne dañ koy fësal ma nga xamante ni bii lii moom moo leen tardé. te gis nga li may bëgg a wax mooy nee naa la Wally Seck kuy comparé moom ci réew mii booyee boo ko def ndànk parce que yàlla dimbali na ko. ba am na lu ànd ak moom am na lu ko dimbali te aussi ñu ngi dimbali nit ñi te yàlla tax ñu mhm. doom moo ci nekk mhm. nooy tegee waaw di ñaan rek santaat yàlla bu baax a baax ñu daal di ñaan ne beneen numéro insha allah jaajëf ci yeneen i waxtaan insha allah mhm. sëñ bi nag xam naa du ma fi gëj parce que yow mii baax na baax na maa ngi lay déglu insha allah yaa ngi dégg bu ci lu ci bëree bëri nañu jaaw nañu bàyyi xel xam ni Wally Seck yàlla dafa fee bidiwam dafa tàkk Mhm. yàlla daal di ci teg loxo bu baax a baax nañu bàyyi xel loolu mhm. damay wax saa su nekk man na nekk musicien bi mhm. musicien métier la waaye en dehors de musique bi après Wally ban comportement la yor digganteem ak nit ñi ak këram tamit ak ñi nga xamante ni bi ñoom la seqal jàmm lool laa lay wax beneen bi ci des nag muy cadre ñeneen musiciens yi nga xam ne ñoo koy diingat nee naa leen Wally ku ko ci diir ak diingat wala nga yemoon jiitanteeg mbagg da ngay fay ni sonneel loolu mystique la wallaahi mystique bidiw bu ko yàlla defal la bidiw bu fenk ci moom la leer laa la wax bari na koo xam ne mi ngi comparé boppam ak waali waali raw na ko bu yàgg geesu geesu na ko xam nga waali fi mu nekk nii fan la bëtam teg hmm. maanaam au niveau international hmm. waaye Sénégal bi gisatuma lu mu fi prouvé boo xoolee ñi nga xam ne ñoo daan wax wax ju sew yépp ci moom wala ñi nga xam ne ñoo ngi teganteeg moom mbagg boo xoolee ñi ngi ci guddi gi bët setagul hmm. fay daf lay fay yomb Mhm. par nag nekkul loo xam ne xolam la waaye fu ngiram taxawee la tey nag euh, tey dama ñëwoon seet si ki nga xam ni euh, ku bëri xam-xam la ki nga xam ni ku gis image am euh, di nga ko bàyyi xel parce que yàgg na si tele yi yàgg na si kii dama ko gëjoon jàkkaar dama gëjoon jàkkaarloo ak moom kii mooy sëñ Abdou Khafour abdu Khafour sëñ bi nuyu naa la. maa ngi lay dellu muy baax a baax xaaji mbay bu baax baax di mbokki internet yi li yi seetaan mbay lambar lambar TV di ñaan yàlla lépp luñ ci wax yàlla na nekk njëriñul askan wi bismillah. acca sëñ bi tey dama ñëwoon si diggante eh, combat bi nga xam ne moo lëmbee àdduna combat bi nga xam ne dama xaw dafa xaw a jaxase sama xel bi parce que combat daaw ma eh, bërki démb bu doon waxtaan ak benn si ñaari mbër yi naan ko man combat bi dafa